bismillaahi rahmaani rahiim barakati Seexel Xadiim nu fas yéene delsi ci ñaareelu waxtaan bi jëme ko ci téere sëñ Alxaaji Mbàkke bi mu dajale tomb yi sëriñ Tuubaa daan tombal mag yi sëriñ bi bi mu jógee Jolof jëm njëreem daa am ku leen romb di laaj taalibe yi ndax amul ku leen fi romb am ku ne ko mooy kooku gàtt te ñuul sëriñ bi ne leen nii ngeen di yàqe seen mbokkum jullit daal wax ka ko wax ne ko demal ba gis ko nga jéggalu ko lu ko may bu ma fekkati fii waxtaanu fukkeel bi ak juróom-ñaar sëriñ bi mas nay dox guddi ba yam ci ñuy jëw ba mu xëyee gas lu fañ toogoon suuf sa féete woon kaw féete biir daa digle ñu jàng fa kaamil alquran waxtaanu fukkeel ba juróom-ñett sëriñ bi nee na taalibe yi koo ci digal dara bu génnee naan manum lëm te boo ko bàyyeeg malaaka wenn waxtu muy ŋaax ne mbaam waxtaanu fukkeel bi ak juróom-ñeent am na saalum saalum boo xam ne dafa mas a ñëw ci sëriñ bi ne ko ñang ma boole loon ñëpp day digal naa leen jaamu yàlla sunu boroom waaye defuñu ko fay may laaj xalaat dem wàcc leen fa wala ma génne leen sëriñ bi ne ko boo demee nga digal leen jaamu yàlla sunu boroom buñ ko defee nga ànd ca ak ñoom bu ëllëgee nga mucc ñu mucc buñ ko deful bu ëllëgee nga mucc waxtaanu ñaar fukkeel bi sëriñ bi mas naa tomb ñeenti tomb yu mel nii daal na benn tomb bi mooy liñ la digal ñaareel bi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 na nga fa yem fayda mooy looy def ci lu baax nga yemale ne ca yow dong ak nekk ca ak junni farlu mooy loo baaxoo ci lu baax di ko def saa su waxtu wa jotee bu la ko kenn mën a tee def lu waxtu wa xat-xat waxtaanu ñaar fukkeel beeg ñaar am na koor goo xam ne ba muy dëgmal sëriñ bi daa dajale ña kër gi bind sahru ramadan bind alxuraan daa dina bunti àjjana juróom-ñett la rafi sahru ramadan juróom-ñett la ku koy woor nag sunu boroom dana la dugal àjjana daa dina bunti sawara juróom-ñaar la arafi alxuraan juróom-ñaar la moom it ku koy jàng sunu boroom dana la tëjal bunti sawara yépp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 kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil tey ci ñaareelu waxtaan ci téere sëñ Alxaaji Mbàkke bi jërë ngeen jëf